noo ko analyser waaw combat la combat bu doy ngoog tey jii ku ne kii moo man rek wala keneen ngay mar jàppal ne kooku mbëru jàmbur mbër moomu la fer cinquante cinquante la li may wax boo ñaa bu mu topp fif li wu jeunesse am ndax la de waaw fukki am bu ko topp ndax la deger champion la. mu yokk poids ci combat la deger est-ce mu yokk poids bi mu yokk poids. waaw moom loolu moom loolu ko moom la. non moom lu dal xelam rek lay def tey jii mënoo xam kan moo nekk si ñoom ñaar kenn ku ne mënoo xam kii xelam kii xelam mënta ne kenn ku ne lu dal sa xel rek ngay def n'est-ce pas. yee loolu la. merci beaucoup jërëjëf mon ami jaajëf. waaw combat Lac de Guiers Boy Niang ko doon jàngatal noonu. combat boobu daal ñaari défenseur ñooy bëre mais yaakaar naa si komba bi dina am ku doon attaquant pour combat bi mën a jeex. fo kan nga foog ne mooy song. Euh, booy Niang mais am lim bëgg Lac de Guiers amul dara lu muy prouver si combat bi ndax moo may booy bi sens booy bi may sens nag moo war a xool fu mu dem si kaw Lac de Guiers itam moom bu daanoo xam ne day wàccaat ci booy yi comprendre moo tax combat boobu booy Niang moo war a attaqué lu fa mën a xew nag ñu xam ne làmb la. mais est ki nga xamante ne moom mooy Lac de wóor na. mais c'est normal gisoo Modou Lo jar na sax mu koy attaqué di def ay spectacle comprendre di def comme Modou Lo ni mu doon defak ak Lac de boo ko attaqué wul doo ko daan boo bëggee téye sa bopp doon ab défenseur da ngeen di match nul de xaw ma nag mooy loolu. Lac de Guiers gis nañu ne poids bi dafa yokk muy ba rek euh, mën nañoo wax ku mu ku mu ku mu ku mu xaw a euh, je koo xamante ne booy la buy doog a yëg mais dafa yokk masse bi. waaw boobu mu yokk. Euh, du mën a attaqué comme li ma la wax sama biir wax rek boo gisee booy ñax dafa wàññi poids. comme sama combat ak euh, kii euh, bi passé combat bi dama noonu lu mar la di gën a yokk poids mu may gën a arrangé man lu ma gën di wàññi poids mu may gën di arrangé combat bi nag noonu lay demee. mais Lac de Guiers bëre moom wàññi sa poids est-ce wóor na ci Boy Niang. wóor na kay bu fekkee man ni nga bëre bu fekkee am na foo xam ne mën ngaa mën ngaa bañ ba dul la fa yegg loolu dina wóor. mais Boy ñaa bu ko Lac de ne ciix mu wàññi poids est-ce que wóor na. billaay wóor na ndax mbër danaa la bul maye ñu takk la ku la doole. bu ko may mu takk la bu ko may mu yegg si say tànk bu ko may mu ngóofaan la suuf ñett yooyu boo ko bañee bul nangu mu naax la bu boo ko bañee rek mën nga am mille chance ci combat bi comprendre mais poids lourd booy bëreeg moom am na ñooy bëreeg moom bu dawee di la jël si rek da ngay rasu rocce ku génn man loolu laa gis si combat bi. rapidité la booy ñaa liggéey. jeex na tàkk loolu mooy combat bi euh, kii nag euh, Lac de Guiers bi moo koy arrangé ndax booy ñaa euh, du ko mën a yegg fenn fii quoi. xam nga ndax bu ko yegee fenn fii dooleem la koy mën a lee mais Boy Niang moo war a def ay kaleem pour génn ci combat bi. Boy Niang Lac de Guiers noo koy analyser. waaw booy Niang Lac de Guiers man moom damay jox cinquante cinquante comme mbër laa ku daan baax na quoi. waaw ku daan baax ok jaajëf. ñu jëm ci weekend bi ci lamb ju doy waar bii di ñëwaat muy diggante euh, booy ñaa ak ki nga xam ne mooy Lac 2 nan nga gisee combat bi. bu doy waar la. combat boo xamante ni neexu la analyse. parce que dañuy ay ñaari champion yoo xamante ni seen calcul day day day bëri quoi looloo tax. nekkul a nekkul a analyser quoi mais combat bu neex la. dama dama seetlu gis booy Niang sàcc Boy Niang fa euh, euh, wàññi poids a rapport ak adversaire am Lac de dafa dafa dafa yokk poids est-ce que pour yow Boy Niang waroon na a poids man li ma gis kon gis-gis yi bokkul parce que Boy Niang boo xoolee dafa yokk volume dafa yokk masse. loo tax ma ne la loo tax ma ne la combat bu doy waar la. ñoom ñaar ñëpp dañoo si forme ku si juum daal waaw. kan moo war a song. kan moo war song ku nekk daal sa manin sa manin boo ko fi bàyyee dem xooli leneen non doo doo doo ko waxat. ñoom ñëpp seen manin dañuy xaar adversaire leen ñu exploité. waaw calcul la calcul noon lay def mbër da ngay calculer doo parax paraxi parce que temps bi 45 minutes la préparé ka ay yées def si lu ne ñëw si ay secondes nga bëgg kaa yàq non non. alors ñu jëm ci événement bu mag. Euh, ci diggante Lac de Guiers 2 Boy Niang 2 nan nga gisee combat waaw loolu moom combat bu neex la wax dëgg yàlla combat bu neex la te ay combat ñaar champion la te tamit bon ku si pronostiqué mën nga juum ndax nit ñi dañu jàpp ëpp na doole xëy na mën ëpp poids mais ëpp doole lamb ju neex la pour man daal 50 50 la quoi pour man. waaw ñu ñu seetlu loolu Lac de Guiers dafa yokk poids. waaw Lac de Guiers dafa yokk loolu loolu nit ñi yaakaar quoi loolu yàq yokk ba ku mun bëri la wax dëgg yàlla macha allah Lac mun bëri la moo tax ku si pronostiqué mun nga jum quoi. mun nga na Lac de Guiers jëli ji Boy Niang mu yor. en tout lenn xam naa ko ku nekk bu ñëwee réservé si match ni lañ si match ni lañ jëm ku nekk bu ñëwee def li mu a def combat bi dina neex te dina gaaw. ñaari mbër ñoo xamante dañuy xaar nga songu ñu exploité. waaw loolu mooy problème bi mais gëm naa ne combat demee noonu ndax Boy Niang pour mu am dara waaw ah, mais xam naa loolu it seen seen préparateur yi préparé nañu leen si xam nga combat ko fekk entraînement mu wër te wër mais bu préparé ko war a préparé na gaaw ah, mais bu nekk ñu téye boppam sama suñu la jëm. kuy favori. man su ma la favori boo ñaa laa ko jox ndax mooy sa mbër. bu ma la jox favori. waaw ñaa laa ko jox ndax mooy sa mbër. mooy sa mbër la amee lépp Pikine moo tax ñu xam ko lii moo tax quoi. Pikine di waajal événement bu mag di waajal bés bu mag ci nan nga gisee combat bi. Boy Niang moo mën moo ëpp doole moo dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. mais yow lay wax ni. mooy xale. li mu prouvé ci bëre la dëgër prouvé wu ko ci bëre gaa la dëgër benn mbëre ko daan champion la. la dëgër lu waay mën a coolal mën a coolal xam ne ndaanaan la champion la. Eumeu Sène ko daan ci làmb te ki ko daan ci làmb moo mën ñëpp. comprendre nga. mais ñu gis ne la dëgër dafa wàññi euh, dafa yokk poids am a diis. Euh, boo Niang ñu sentir ni poids bi taxu koo demee dafa wàññi poids dafa mel ni. Boy Niang carrière am yëpp état bii la ko bëree. musul jël masse boo xam ne bu simeekoo ñëpp dañ naan boo Niang jël. wóor na ngay bëre poids lourd bu ni toll nga wàññi sa poids. mais boo Niang ñi mu bëreel ñëpp ay poids lourd lañ. Sa Thiès poids la guy Gui poids lourd la Sa Kajoor poids lourd la boo koy lim fi ngay fanaan Boy ñaa carrière am yëpp ay poids lourd la ci bëreel dañ koy ñaanal ndam ci barki yonent bi.